Rewmi 24 leen ak jàmm ci euh, xibaar mercredi 14 février 2024 askan bi la ñuy sàkku rek mooy libéré ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko di 14 régions Sénégal yëpp ñu yore ko gis tey jii rek baax a baax li nga xam ne rek moom mooy élection. waaye it ñu rek vendredi bi ñu jëm la doon rek manifestation boo xamante ne rek. ñu ngi ko tuddee rek vendredi euh, de la libération mu doon loo xamante ne askan bi yëpp rek euh, ñu ngi koy waajal mu doon loo xamante ne askanu Sénégal ñoom ñëpp rek ñu ngi préparé wu comme mu mel yi askan bi li ñu wax mooy d' nañ ci ñu libéré Ousmane Sonko waaye it Bassirou Diomaye Faye élection kon ñu bari ci askan bi loolu la ñu wax ñu ngay xam ne nag nangu nañ Ousmane Sonko dem torop waaye ki nga xamante ne moom mooy Bassirou Diomaye Faye dañu dem élection kon loolu la askan bi xam ne waaye mu mel ne vendredi bi daal ñoo ngi ko tuddee rek vendredi de la libération Dakar Obélisque à 15 heures mu doon askan bi yëpp nag ñoo ngi koy waajal ngir vendredi bi ñu mën a dem rek ngara def ab manifestation ngir rek nguur gi mën a organiser